ziar leen wax ne ñu ngi fii ci Pekes ñu nag euh, capsule tabaski ñu ngi koy ubbilee fii tey ci dagaralu Pekes Pekes boo ko déggee mi ngi nekk ci ginnaaw Ngaay boo ñëwee ba Ngaay rek dugg tuuti à cent presque euh, trente euh, quelques kilomètres de Dakar tey nag ñu ngi ñëw xool situation xar yi ñu mu demee ànd ci nag waa Grand Moulin les Grands Moulins de Dakar Euh, jarga bi nekk euh, xont boo xam ni war ngeen ci mën a xont seen xar macha allah muy euh, jarga bi kon ñu ànd ak les grands moulins de Dakar def cap tabaski ñu dugg ci daral bi xool situation balaa ñuy dem fee nag dañuy waxtaan ak ki nga xam ne mooy responsable daral bi muy kilifa gi fi nekk ñu doog dugg xool lan mu naka la demee topp leen mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fii ci Louma Pekes bu ñu dugg fii nag dañuy ñëw daral ki nga xam ne moom mooy responsable daral bi kilifa gi maa ngi lay maa ngi lay fay. tur bi nan la. waaw Serigne Ndiaye. Serigne euh, yaay responsable. waaw maa responsable ci dara bi yëpp. Uh-huh. waaw. depuis ñaata at. ah léegi dem na ñaar fukki at ak juróom-ñett. nga ne fi. waaw maa ngi fi. macha allah man léegi maa am juróom-ñett fukki at ak juróom. mais kenn ne gars yi kenn neexu leen loolu man. waaw yow ba ngay ñëw ci daral bi. da nga fi ñëwoon am ku fi nekkoon nga wutu ko. wala da ngeen koy doog da ngeen koy doog a sos. déedéet nekk fi mm-hmm. bii moo nekk ñetteel ñeenteel bi marché fii. dara bi moo ko nekk place bi moo nekk ñeenteel bi marché fii ñu toogee bi nga xamee ne baana baana yëpp am nañu ay coow yoo xam ne ñu ngi fi am te kenn di jënd ñeent marché nga wax ñeenti place ci dara bi nekk na fële nekkoon na fële uh-huh. nekk fii muy ñett ak fii muy ñeenti yoon ñeenti yoon yëpp man maa ko ko yore woon ok waaw ñoom li li tax ma yore ko nag leen dañu dem dañoo toog fi ay lëj fi am ak yeneen wax yoo xam ne kenn mënu leen a lijjanti jamono boobu boo lëj doo fii ngaay ngay dem gendarmerie moo ngaay ngaay ngaay rek ko fi am. ngaay ngay dem bu ñu la bu fekkee ne enquête nañ la déglu la ba ba ba yeggale ñu bindal leen seen i kayit ngeen dem tribunal man damay ànd ak ñoom di leen témoin di def lépp ndax fii jëm boppam dañu ni suñ koy soxla njiit boo xam ni bu baax lay doon. bi ñu ñëwee chef bi nga xam ne moo fi nekkoon jamono boobu yàgg na. booba doo bii moom rek a fi nekk tabax jumaay ji newu fi uh-huh. dara newu fi chef bi ñu andil ko fi ku ñuy wax ku ñuy wax Assane Fall mm. bi ñu ko andee fële chef bi ni man daal mënaguma gisaguma ko ma doy chef arrondissement bi ci boppam waaw booba chef arrondissement yee fi ne mu ne gisaguma ko ma doy ñu ne ko kon ñu ne mbooloo mi da ngeen dellu seetaat ku leen doy te dëkk ci commune rurale bi ñu ñëw jël ci man leen man day waaw ah, jaarale ni suñ man leen man day dama toogul waaye ba ma leen dara ñu ne yow daal yaa yaanu ci doy yaanu ci doy ñu ba ñu présenté ñu dem chef bi góorlóor taxaw ni chef bi taxaw ñu kii la ñu andi moom moom la ñu tànn moo ñu doy mu ne comme comme moo leen doy nag bu leen doy lu man doy na ma man mii man mii ci boppam doy na ma secrétaire am ba ñuy wax jaañ te mu dëkkoon bari ñi moom keroog moomu fal ñu yëkkati kayit yi bind ko boobaag léegi maa ngi sant yàlla. boobu xanaa boobu yaa ci ñaata at nga amoon boobu. boobu yàgg na de. yàgg na de parce que 37 laa judd. waaw. macha allah léegi tey daral bi fan la toll boobaak léegi est-ce que am na avancement est-ce que. am na ko. ndax li tax mu am ko. digg bi ñu daan nekk. mooy bunt bii rek lañ daan nekk. digg bii fii lañ daan yem. waaw léegi daral bi mi ngi dem ca nay ci la bokk. nay nga séen fële. ci la bokk lii lépp ci la bokk. maire bii nga xam ne moo fi jógee moo ñu tabaxal maal bi. dàqe fi jóge waaw moo tabaxal maal bii bii fi ne ba ñu dara moom ab ba la ku baax koo xam ni ku am wëllëre ci nit ñi nit ñi tànn ko moom mu nekk sunu maire fi ne waaye ki fi jóge loolu ma saa soxla defal na ko waaw léegi nag xar yi euh, nan nga ko gisee boobaak euh, fi yow da nga daan yar xar ba léegi yaa ngi ci ba léegi maa ngi ci xar yi ba ba jant tey bii da indi fii wala ci daral bi nga nekk damay ñëw fii bu ma jógee sama kër ma dugg sama oto ñëw toog fii foo dëkk yow Njogo Baay gi benn village bi la soriwul soriwul ngi nii dégg nga ah. su ma duggee sama oto ñëw yendu fii ba ngoon damay tekki sama xaalis de uh-huh. jënd xar mi fukki junni ah. lu ñu ma ci tegal ma jaay ma jënd mi fukki junni lu ñu ma tegal ma jaay ko waaye kenn musuta taxaw ci dal bi yëkkati ñaar fukki dërëm ma ba ma ko ko joxee bugguma neexal bugguma dara ah. boo newul ci dëgg mën na newoo ci dëgg waaw ndax li ñu doon seet ci man moom la ñu war a gis ci man. gis nga ci sa bi bi ñu waxee li ma leen wax. koo si amul ci fii dara keneen amu ko fa noonu rek noo moom suñu dara boobu ba léegi ci noo ngi ciy dox te tànk jàmm la ndax ñi nga xam dañ daan fa alal jàmm di ko jaay fii dégager naa leen fii bañ set te te kenn coow jibut waaw. kon léegi daal mën naa ne fii bëriwul ay coow ak yow. bëriwul bëriwul. jaaykat yëpp déggoon jaaykat yëpp ku ma bul def nangam du ko def. macha boo jaayee alal nit alal ji am defo bu ma dikkee dama la koy jox ko xaalisam. te da koy jox waaw da koy delloo ba mu mat. ndax nit moom bu jëndee alal joo xam da ko jënd pour tabaski. ki ko jaay lu pat bu ko jaay lu làgge bul ko jaay lu màññ. na ko jaay lu loo xam ne fu mu dem. lu am solo la waaw. man loolu laa dox. kon loolu kon loolu lu jar a li jaaykat yi la. ñu ku ci yor loo xam ne xam nga ni. dafa am dafa am ci ne nga koo jaay nit. xam nañu ko ku ko def itam bu may ñëw nga di ko delloo xaalis bi du ma woo police du ma woo kenn damay taxaw rek bu ma taxawee ni ko jàkk ni la yow kii yaa ko jaay di nga ne ma waaw hmm. man la delloo ko li mu la joxoon ndax ba matul waaw nii la cikk la am nangam la am nangam la am waaw man noonu lay doxale loo gisee xar yi ren dina am xar yi day am hmm. waaw day am waaye day cher waaw day cher waaw waaye nag dana am waaw bu soobee yàlla ndax prix yi fii nit ñi bëgg xam nga limite ci àddina mooy nga fukki junni bëgg xaram fanweeri junni kooku day indi jafe-jafe waaye bu fekkente woon da ngaa yor fukki junni jënd xarum fukki junni dem du am benn jafe-jafe loolu rek mooy client am xarit cher na xarit cher na looloo ko seeral waaw loolu rek moo ko seeral. waaw kon daal ginnaaw loolu moom amoo leen problème mu ndox amoo leen problème mu courant amoo dara. ndox mi mi ngi ñëw robinet baa ngi nii mbalka yi bi garalu na ko ba pare cimenté ñu ko waaye dañu ko cimenté problème bi nu bëgg daal moo di miir boo xam ne dafa miiree daral bi ba mu nekk. waaw ba mu ba mu yegg boobu daal defal ni làmp ci biir nga xam ne bu tawit ci ñëwee dañuy jaay guddi ak bëccëg. loolu moom moom la ñu gën a. tey mooy seen waaw waaye ñëwagul waaw ñëwagul. waaw ndax addina moom ndànk-ndànk rek. waaw jërëjëf papa. yéen nag dañu leen di sant bu baax. incha allah di ñaanal yàlla mi am jàmm moom jàmm yàlla na yàlla defal jàmm lépp lu ngeen soxla yàlla na ko yàlla def jërëjëf jëf sant nañu yàlla sant nañu leen. jërëjëf waaw euh, mbokk Samagal TV ñu ngi fii ci daralu Pekes taxawee nag ma taxaw ak kilifa gi euh, champion siyaar naa la. waaw sëñ bi ñu ngi lay seetlu siyaar. tur bi nan la. Ah, Mayacine Ndiaye la may Ndiaye ñoo ko maay Pekes. yàgg naa jaay xar yàgg yàgg naa jaay xar jaay naa ko fii ci Kajoor fii Pekes jaay naa ko dakaar maam boo demee Dakar fépp fa fépp ay asalem ak liba cinq fépp jaay naa fa xar yàgg naa jaay xar def naa ci manaam 15 ans boo xool waaw. 15 dëkk man maa ngi dëkk fii Ndiogomaye. Ndiogomaye waaw pekes euh. ginnaaw pekes yi rek comme pekes. yow lan ngay faral di jaay euh, xar yu mag wala xar yu ay waaw non dama damay jaay xar yu mag dama jaay yu ndaw. waaw euh, mais damay élever quoi moom éleveur la boo xam ni Sénégal yu bëri fii ñu bëri xam nañ ma xam nañ fii ba ngaay Mexe. Ah. xam nañ man maa ngi bokk ci association Ngaye bu Adam bi. waaw xam naa ñoom bu ñu seetaan dañ xam ni ñu ngi ci liggéey bi waaw man tam Dakar it miin ko yàgg naa élevé ñoom taala yëmbal yëpp xam naa bu baax waaw waaw ren da ngay jaay si fii wala da nga da nga ñëw eh, eh, jaay jaar fii pour dem wala da ngay wër lu may non damay damay ñëw di jaay mais su fii damay dem fii mun naa dem tubaatul tamit waaw yàgg na maam daal li yàgg naa ci maam at waaw def naa ci 15 ans moom comme ni ma la ko waxee léegi waaw waaw bu saan toll fii tey mën nañu ñu ngi ci 20 jours defe naa ko tabax 20 jours wala mënatu ko fan la fan la situation bi. situation yi tabaski bi mën naa ni presque deux semaines moo ci des kon li ci bareetul mais xar yi seer na parce que li xar tax xar seer euh, mooy xonto bi moo seer parce que kilo mboq ren boo ko gisee quatre cent franc li ko waral kilo dugub trois cent cinquante trois cent soixante quinze sax boo xoolee actuellement moom ci marché bi mus sam ci Sénégal kon damay damay ñaaxaat ndaw ñi ñaax sénégalais yi ñu dellu ci tool yi dem bay liggéey parce que boo xoolee ñàkk bay bi moo waral dugub ji seere nii te nit ki bala ngaa li ñaan bala ngaa naam ne fa euh, nit ñi suñ bayee euh, dañ am xont bu baax te sénégalais yet ñu dellu ci sàmm bi sàmm kër euh, baax na comme ni ñu ko defee élevé mais li baax mooy am quantité boo xam ne dañu am ay xar yu bëri ñaan Macky Sall mu mu jàppale ñu ñu am ay xar yu bëri bu ko defee mën a am ay gétt di dugg ci àll yi parce que ñoom am nañu àll am nañ àll am nañ àll mais ñu ni ñu dem ay jënd ay xar ay Mali ak yooyu suñ suñu gouvernement bi jàppale yaakaar naa ni dootuñu dem ay Mali dootuñu dem Mauritanie parce que am nañ àll bu yaatu boo xam ne dañ mën a sàmm fi boo xam ne Sénégal xar yi dina a doy. waaw kon nañ dellu ci bay parce que mooy réew mi waaw. waaw yow eh, instant bi tey ñaata xar maa ngi fi xar moom nii yii waaw yii nii yu waaw bi bu mag bi maanaam man maa ngi ko doon jaayee cinq cent mille mais mun naa ko ba quatre cent cinquante daal mooy fa waaw ah waaw bu ndaw bi bi yam ni bi bi mën naa ko jaayee deux cent trente bii nii waaw waaw waaw waaw ah, waaw dernier prix bu ndaw bi bii nii mën naa ko jaayee quatre vingt mille. waaw ku ne daal ku daal yaa xam sa poos fu mu nag yow yow sax sa baax nañ. waaw baax na kay baax baax trop kay. baax yow moom say xar abordable nañ. waaw waaw waaw waaw loolu moom am na moom. waaw baax na lu am rek xam nga am am xaru cent boo quatre vingt mille da ngay wuti quatre vingt mille. ku am xaru am mille wuti xaru xaru cinq mille mais li li problème bi saa su mooy da yor cent mille wala nga am quatre vingt mille di wut xoru deux cent mille yi sa loolu bu ko defee da ngay wër ba sonn naa xari seer na te loolu du demee noonu waaw waaw waaw a tax waaw kontaan nañ jërëjëf jërëjëf sëñ bi xëy na man dinaa dajawaat ak waaw dañ wër waaw dañ waaw euh, mbokk Samagal TV ñi ngi fi ba léegi ci euh, lu Pekes ma ñëw nag ci champion bi kilifa gi ci yaaral waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax tur bi Ibrahima Sill Ibrahima Sill Sill fan nga dëkk sancub Sill côté Thiel fu mu ne. Santhib Thiel côté Niakhé. Euh, nu mu def euh, fii Pekes. 9 kilomètres de Pekes. 9 kilomètres waaw ah, loolu soriwul de euh, tey gis naa la nga indi ay xar ay xaru yaat kañ kañ nga nekk ci xar yi. man xar yi bi mooy sama troisième édition quoi. ci ci opération tabaski ci opération tabaski quoi ah. waaw. ok mais daawoo yar quoi. da ngaa hmm. dugg ci. non yàgg daan naa yor ay xaru jigéen ak yooyu mais instant yi dama am amour ci xar yi après ci laa tàmbalee def opération. di jaay yi jën naa leen ay 6 mois ci ginnaaw quoi. 6 mois ci ginnaaw. oui ci yan prix. ci ay 85000 90000 nga leen di jëndee quoi nga leen di recruter. ok instant euh, instant bi euh, boo leen euh, ci yan ci yan yi gën a ndaw ak yi gën a cher yàlla. yi gën a ndaw 150000 150000. bi gën a cher. bi gën bi bi ma sa ñaata génn. bi mooy suñ troisième édition génn waaw non yoon nga génn gum jaay. génn ñaari yoon lañ génn gum. bi bu njëkk bi ñaari xar nga génn bi njëkk bi génne woon naa 5 xar. fii Pekes. waaw fii ci Pekes. ma jeex na yooyu jaay naa leen waaw marché bi paase. tey nga génne ñaar tey ma génne 10 xar. 10 xar ñaata des. instant yi jaay naa ñaari xar moo des rek yooyu yëpp jaay naa leen ba mu des. mu des ñaar ñaari moo des. macha allah waaw ah, waaw mais parce que nag yow sax xar dañoo rafet de. waaw xar yi moom macha allah wax dëgg yàlla macha allah xont moom xar moom secret bi mooy xont rek. xont rek nangu la jënd xont rek. yaa ngi xontee jarga bu galaamu lay bi. non jarga bi la ñuy xonte ak grand mu lay. wax ah. dëgg yàlla waaw. waaw euh, sell na te euh, baax na ci xar. trop trop voilà tey euh, gis naa ni yow euh, ni ngay def nii xam naa ni yow euh, macha allah gars yi bu la gisee dinañ dinañ bëgg say xar te xam naa di ngeen yeneen. waaw dinaa indi yeneen dama damay am yeneen incha allah. waaw bee ci béjjén bi ne moom ci fu mu fu mu toll ko jaayee. bii nii de mën nañ ko jaayee trois cent mille. trois waaw moo gise jaay ko. ban moo fi des instant bi moo kan. instant ñaar yi moo ñaar waaw bee bee fu bee de su ma si gisoon deux cent moom danaa ko jaay. deux cent bii cent quatre vingt mille laa ko jaayee. cent ah, baax nañu. waaw bu trois cent ko la fay deux na yokk rek bu kii rek bu defee man baal ko si dix rek. Ah. <laughs> kon nee eh, yow yow sa numéro xam naa gars yi nañu la soxla. ah waaw xarit day maa ko jënd maa ngi jógee fii ba Dakar ñëw yaakaar ne fii gën a yomb mais fii moom wax dëgg yàlla xarit seer na lool waaw xarit yi daan jëndee daaw ay cent cent quatre vingt deux cent boo ñëwee ne ay trois cent jëm kaw waaw gis nga xarit yaa jënd naa ko juróom fukk waaw ba ba wut waat dara dana waar wax dëgg yàlla béy béy wi ngay see maa ko jëndee trente cinq mille waaw sa béy bu njëkk ay vingt cinq mille quinze mille xont bee seer metti na wax dëgg yàlla Macky Sall dañu dimbale ñu xam ne ay dañoo yàlla mooy nattoo ñooy jënd jëndee xar jaay nekk ay éleveur xont bi laa bëgg mu jàpp si saa ko ñu jëlee ñetti junni bu dee FKS ñu ko jëndee 12000F saako bi naaf jëm 8000F ñu ko jëndee 12000 xam nga loolu métti na. fooy fooy jaayee Dakar. maa ngi jaayee Dakar Kër Massar. jaxaay waa parce que unité 15. ñetti xar laa fa jënd. waaw am na ma yor fooy sama kër waaw. Ah, waaw waaw damay dool ji waaw. wax yàlla xar yi métti na lool wax yàlla Macky Sall moom ni ñu dimbali ci xonte bi dañuy gën a. ngooñ maa ngi nii kenn mënu ko gis seer saako 5000 métti na. ba nga commencé léegi ñaata yoon man boo tama ma leb léegi nii jëndu naa fi ñetti xar mais am na yeneen mu bëgg mais xar yaay seer waaw am na mooy génn sama get waaw waaw mi ngi sama gétt non sama gétt damaa yoroon ah, trois mois la ko junoon yeew waaw euh, grand tey moom maa ngi fi kii moom moom xam naa ni day day bëggul la feeñ waaye dañ dégg dañ dañ dégg dañ ko déglu kilifa gi nga def saa bi ñu lay siyaar bu baax a baax waaw tur bi naan la ateex jàng la maa ngi gis nga yaa ñaari xar yi nga ni wala am na Euh, ñaari laa ne ak bii. Ah, ñetti xar yi. ok yi fo yi foo yare. ay fii Darou Manane lañ leen yare woon Darou Manane Kër Seex Awa Balla. Darou Manane. Kër Seex Awa Balla. Ah, ok mhm. ñett yi loo koy jaayee tey fan la toll. ñett yi wala par benn. par benn waaw comme bu taal ba bu dee bu mag bi la xam naa moom ko am ay huit cent millions yi ah. moom. moom moom ba ba ba ba ba deux cent cinquante. ñu jox la ko moom. bu dee bu bu dee bu ñuul bi. ba sept ba sept cent cinquante laa bëgg a waaw ba sept cent cinquante. bu dee bu ñuul bi moom. ku am trois cent ba trois cent ñu jox allah bu dee bii moom ku am deux cent cinquante ba deux cent vingt cinq ñu jox la ko. allah. xar baax na de. waaw ah, macha allah ay xar la moom. ko juddule eh, bii bii lañ juddule nag. bu ñuul bi bu ñuul bi mooy bàyyam moom. bu ñuul bu bu weex bay bàyyam. bu weex bay bàyyam waay. macha allah. waaw macha allah kilaaru pur sang la. la. ah non xaar xaar yi moom rafet na ko tur nañu rafet na waaw bu weex moom laa doon pir sangaram doomu la baro mu ah, ok waaw ah, nga ko xar baa la de macha allah ñu koy wax booy ñaa waaw bu nga ne bu ñuul bi ku am trois cent cinquante nga jox ah, ko wax dëgg yàlla waaw allah bii nag am deux cent cinquante ba deux cent vingt cinq ñu joxal ko bu soobee yàlla incha allah incha allah